alors dama la laaj sànq. Hmm. Euh, à quoi joue le parti au pouvoir hmm. en soutenant hmm. la commission d'enquête parlementaire euh, et puis il y des membres du parti au pouvoir ñu wone ko am na ñu quelques-uns yu amul de grosses responsabilités yu fës mais dans le régime am na un groupe boo xam ne ñu ngiy manœuvrer ñu ngiy œuvrer pour le report des élections dañoo doyalul dañoo doyalul ci nguur gi dañuy jàpp ni <laughs> élection yi bu ñëwee wax ci affaire jeex na te xam nga àdduna la mu xam ni xale bi way rek bu jeexe rek jeex na. mais nan nan lañ mën a liggéey loolu yëpp <laughs> le président de la République d'un côté qui assure hier que Amadou Ba est le candidat les élections se tiendront à date échue un groupuscule euh, euh, à, dans, dans au, sein de l'APR mm. qui manœuvre pour faire reporter l'élection le PDS qui s'allie avec euh, l'APR pour une commission d'enquête parlementaire en plus de, euh, de, de, de des députés de Taxawu euh, et d'autres membres de de l'opposition euh, nan nan ngay liiree carte boobu waa PDS moom reproché wu ma leen dara ñu ngi ci seen yoon sa candidat man li ma jàpp mooy seen candidat dañ ko dindi ci tooñ ko lan laa jàpp loolu mooy sama lecture droit man bi ma jàng loolu laa jàpp dégg wax bi ñoom it comme lan lañ jàpp sañ nañ dem ba li leen yoon may loolu am nañ ci droit waa nguur gi nag nañ déglu wayu xale bi bu jeexee jeex na koo koo mën a way xawma ban xam da nga xale bi way loolu yëf yi bu jeexee jeex na xaw ma kan ah, yàlla rek affaire bi jeex na mais boo naan waa nguur gi waa gi yëpp ngay waxal wala am na ñoo xam ne seppi nga leen si non man de Macky lim ma wax hmm. Hmm? lim ma wax comme dit Idrissa Seck de sa bouche à mon oreille biir këram. c'était il y a deux mois. mu sol mu bu weex sol mbaxana bu rafet. c'était il deux mois trois mois. soxna si indil ñu ay kafe euh, bu neex ndeysaan madame Faye Sall jigéen bu xam teraanga mu toog ci wetu piscine bi nii ma ne ko président mun ma non report amul. ah mais c'était il trois mois. li am daal mooy non mais waxaat na ko. waxaat na ko démb. mais président Sall bi mu waxaat ko. président wax na ko waxaat ko waxaat ko waxaat ko. donc ñu déglu li président wax. ah mais loo loo wax leneen moom mooy ndayu mbill gi moom nee na ah mais bi ko bi recalé yi bi ñu demee lu mu leen wax nañ jéem a xool nu ñu trouver solution mais loolu yëpp ñu respecté euh, calendrier républicain bi ak ni ñuy gérer réew meeg yooyu président kay nag vraiment lu ko ci nit wax tooñ ko. mais relation candidat bi Amadou Ba ak ces hommes ci manœuvrent à l'intérieur mmh. ce que loolu dina favoriser une victoire au premier tour comme le dit Amadou Ba dans un entretien à France 24 Ba ay adversaire am nekkuñu ci opposition bi ay adversaire seeram ci nguur gi la nekk Amadou Ba benn défi la am Amadou Ba amul problème ak opposition bi parce que bu fekkee moom ak opposition bi rek la rek la bu benn bokk yaakaar voté Amadou Ba day gagné au premier tour dégg nga baax la. ah bon bu dee moom ak opposition sur le papier laa wax sur le papier tey defal ndànk tey ci kayit tey ci kayit ah ñëpp ñi nga xam ne ñoo téye fief yi ci Sénégal yëpp en dehors de Boun Dionne ci kayit laa wax de. Mm-hmm. en dehors de Mame Eh, eh, El Hadj du Diaw. Mhm. en dehors de euh, en dehors de en dehors mhm. ci ñu xam bokk. ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci famille présidentielle bi te yor ay fief ci Amadou Ba lañ bokk bokk. Mhm. ñooñu ñëpp bu seen ay fief voté lee Amadou Ba. Amadou Ba dafay gagné man na sur le papier dama ni la il gagne au premier tour ci kayit mi ngi donc lu moom la bëggoon wax tey ci kayit matchu senegal beeg Côte d'Ivoire bi du match ci kayit. Sénégal gagne. waaye nag danga koy def ci réalité bi donc man la Amadou Ba problème am du opposition bi ay adversaire am ci nguur gi lañ nekk. est que ñi mu bokkal nguur gi ñu bari yéenewuñ ko affaire bi affaire bi metti ci ñàkk yéen kese wax démb li mu wax démb dafa leer Amadou Ba xam nga ñu ngi ruuma daal report di ci tudd ñëpp lan la wax dafa leer élection dafa war a am dara waru koo tee am administration bi pare na lépp gi fi man maa ngi dem élection leer mais est-ce que ci ñàkk yéeme yéene rek la la la yem divergence boobu am entre le divergence de vue entre le candidat. ñi ànd ak moom ak groupe bi nekk euh, biir appel qui qui avance. non am y a plusieurs ñii yérewuñ wuñ ko ko ñii bëgguñu nguur gi jeex parce que jàpp nañ ni bu report amee Macky Sall dafiy toogaat Macky Sall toogaat te ñoom ñu continuer ci position ñu am jeex na c'est aussi simple que ça. mais mais affaire bi nag comme ni ko xale bi waaye mais bu jeexee jeex na.